alladi la yantahi ilayhi basaru naadirin fi majdi jabarutihi irtafaat an sifaati almaxluqin sifaatu qudratihi wa ala an zikri zakirina kibriyaau azamatihi fala yantaqis ma araada an yazdaad wala yazdaadu ma araada an yantaqis laa axada shahidahu xiina fatara alxalq wala nidda wala didda xadarahu xiina barra annufus kallatil alsuna an tafsiri sifatihi wan xasratil uqulu an kunhi maarifatihi fa kayfa yusaf kunha sifatihi salli ala sayidina muhammad salaatan taftax lana biha abwaab arrida ilahi wa taysir wa tuxliqu anna biha abwaab alchar wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة في كل يوم الجمعة ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد naqulu lakum salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziara ci ajuma ji fu waay ma ne di ziara kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmma ak sutura eh, di ziara ñi ci hôpitaux yi te wéradi yàlla na leen yàlla dellu seen sago waaye di ziara ñi nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg lu ñu indil seeni njaboot yàlla leen ko yàlla yombalal mbokk yi ñu ngi gën di ñaan. ànd ci yéen ci feebar bi ñi tuddee coronavirus yàlla nañu ko yàlla teggil yàlla nañu ko yàlla dàqal yàlla nañu ko fi yàlla jëleel yàlla nañu ko yàlla tënkal ba jullit ñeeg mbokk yeeg ñi waa réew mi ñëpp ànd nekk benn ànd nekk euh, ci jàmm ju bari yàlla dàqal ñu fitnaay feebar bi euh, defal ñu jàmm defal ko képp ku yeewoo ci réew mi Euh, mbokk yi su ko defee dañuy dellusiwaat ak yéen kala aadati euh, ci seen émission biñ leen di defal ajjuma bu jot ci waxtu wi ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci ay mbir yu am solo waxoon nañ leen ne leen euh, alquranul karim huwa kanzul muminin alquran mooy trésor bu mag bi nga xam ne bi lépp lu ñu bëgg ci la nekk lépp lu ñu yittewoo rek buñ ko toppee dinañ ko gis incha allahu yàlla dinañ ci defal mbokk yi lu kawe suñu njort muy la am solo tey nag dañ leen di indil mbokk yi lu ñëpp yi tewoo di ko laaj saa ne ñu ànd ci ak yéen ak ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu bëgg ñu xam ko miin ko euh, te ñi di ko topp bu baax ngeen jël seeni bindukaay di ko noté ndax jullit bu nekk foo war a nekk war nga xam fooy teg sa tànk mbokk mi nit su jaaxle day interroger yàlla interroger yàlla mooy nga def al istixaara lan mooy istixaara ak lu ñuy defee listixaara dafa am solo jullit bi xam ni su jaaxle bëgg laaj boromam war na xam fu muy teg tànkam euh, su bëggee laaj boromam lu ub boppam wala lu ko intéressé wala lu ko ñor naka lay taxawee mbokk yi istixaara su ngeen ko bëggee jëfandikoo da ngeen di def li ñuy bëgg wax da ngeen di julli ñeenti rakka rakka bu ci nekk da ngeen di def fatiha benn yoon inna ataynaaka al kawsar euh, juróom benn yoon su ngeen pare ngeen def astaghfirullah téeméer salaatu ala nabi téeméer su ngeen paree nag ngeen door a wérd allahu yaa xabiru 1111 am na solo allahu ya xabiru mille cent onze su ngeen paree nag ngeen tëje ko li ñuy bëgg a wax muy aaya bi nekk ci suratu lanaam muy bismillahi arrahmani arrahim wa indahu mafatihu alxaybi laa yaclamuha illa huwa wa yaclamu ma fi lbarri walbaxr wa ma tasqutu min waraqatin illa yaclamuha wala xabatin fi zulumaati al ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabim mubin nga jàng ko onze fois balaa nga tëdd mbokk yi lii mooy buntu bi nit di jaar def istixaara mën a laaj yàlla li mu ak li soxla waaye su ngeen ko defee pare bu leen tëddee lu dul tëddee njaaxaanaay tëdd dëpp baaxul wax nañ ko nañ ci bàyyi xel tëdd dëpp baaxul soo leen defee istixaara da ngeen di tëdd tëddee njaaxaanaay su ngeen ko defee tey li ngeen di laaj yéex defaat leen ko suba su yéexee defaat leen ko ginnaaw suba muy salaasata ayyaamin di ñetti fan yoo xam ne loo ci interroger yàlla yàlla jox la ci lu kawe sañ mu des nag al bayaan bayaan bi mooy nga xam li la yàlla woon lu mu doon ak fu muy teg su booba da ngay woo borom xam-xam yi nga xam ne ñi am nañu connaissance ci wàllu gént yi ngay xam ni moom ngay xam ñu wax la nag bayaanu haadal xulmil ajibi li la yàlla woon ci istixaara bi maa bayaanuhu lu muy tekki ñu baamtu istixaara bi def leen juróom-benn rakka rakka bu ci nekk fatiha euh, inna ataynaaka al kawsara juróom-benn ñeent su ngeen pare ngeen def astaghfirullah téeméer salaatu ala nabi téeméer su ngeen pare ngeen wird allahu yaa xabiru 1111 soo leen pare ngeen tëje ko wa indahu mafatihul xaybi laa yaalamuha illa huwa wa yaalamu ma fi lbarri walbaxr wa ma tasqut min waraqatin illa yaalamuha wala xabatin fi zulumaati al ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin mi ngi noonu kon mbokk yi ku toog sa kër ak confinement bi gis lu la jaaxal nga bëgg laaj yàlla ay mbir mu wal la ci yoon jox la ci ay tegtal istaamilo al istixaarata jëfandikoo istixaara fi lxaqiqati être en contact la permanemment ak rabbu samawaati wal ardi mu nga laaj ko mu wax la Euh, yàlla nag bu lay wax euh, am na nu mu lay waxee euh, wara al asiyaa yi ndax al isharatu takfi li man aqala junju daal mbokk yi doy na borom xel kon yàlla am na nu muy waxee nit ki nañ ci bàyyi xel mu ngi noonu su ngeen pare ngeen tëje ko salaatu ala nabi bu ngeen gën a mokkal beneen bi ciy tegu mbokk yi ñi ànd ci ak yéen muy njëriñu kese bariyaana koo xam ne kii su xëyee dina am ñeenti soxla ba juróomi soxla ba juróom benni soxla yu benn bokkul ak moroom te amaana am loo jot gu toll ni nga war a mën a toog benn bu nekk lu ci war nga def ko ci nit day am yitte boo xam ne bii mbokk mi dafa jara bàyyi xel ñeent la mën na nekk juróom mën na nekk juróom benn mën na nekk sax lu ëpp loolu te mënoo toog benn bés defandoo yëpp ci benn waxtu waaye nag dinañ leen jox bunt boo xam ne bii soo leen ko defee yàlla day tënk ajo yooyu yëpp dugal ko ci faj ko ci ci benn waxtu loolu moom lañ leen di jox nii ngeen teewlu ko te bàyyi ko xel boobu mbokk yi moy da ngeen di def li ñuy bëgg a wax muy lu am solo lool dangeen koy commencé altine ci guddi yéen a ngi koy def diggante timis ak gee altine ngeen koy commencé diggante timis ak gee da di def mbokk yi fatiha 14 alam nashrah 14 liilaafi qurayshin 14 ida jaa nasrullahi 14 qul huwa allahu ahad 14 salaatu ala nabi quatorze ngeen def ko quatorze jours aajo bu waay mën a am boo ci dugalee yàlla faj sa ajo aajo ala asraai waxtin mumkini ñu baamtuwaat ko bésu altine nga koy commencé saa yoo jullee timis defal fatiha quatorze alam nashrah quatorze liilaafi qurayshin quatorze ida jaa nasrullahi 14 qul huwa allahu ahad 14 salaatu ala nabii 14 muy bunt ba am solo li qadaai jamii alxawaaiji lépp loo ci ñaan rabbu samawati wal ardi pendant 14 jours yàlla dina la ko may defal la ci lu kawe sa njot waaye mbokk yi dañuy sopp lool yenn ñaan yi kenn du ko def lu dul am na ci yooyu boo koy def da ngay bàyyi ba weer feeñ indama tala al qamar min wara il guyumi wa gamara bi nuurihi tilka ruwabi wa shawaati su ko defee boobu le jamono nga xam ne nañ nañ tey la weeri feeñ ci nga koy commencé am na ci solo am na yoo xam ne tur yàlla yoo xam ne mbokk yi yaa ngi koy jëfandikoo indama istadati zulmatu bu lëndëm taree ba tar nga koy jëfandikoo mu am yoo xam ni da ngay bàyyi ba weer feeñ mu am yoo xam ni da ngay bàyyi xataa asbaxa al alxamaru badran kaamilan nga bàyyi ba weer mat baron nga commencé ko wa li kulli cheyin makaanuhu lxaas lahu gis nga mbir yi noonu la ko yàlla di tëralee noonu la yelloo tëdde it ala xaal ñu bàyyi ci xel Euh, nekkul ni rek da ngay yàlla mbir yëpp da ko teg fi mu ko war a teg kon ñu bàyyi ci xel bu baax muy lu am solo muy bunt boo xam ne bi bunt bu mag la ci bunt yi ñi teewlu ko noon mbokk yi te bàyyi ko xel bu baax euh, su ko defee ñu ànd ci ak yéen di leen ci bàyyiloo xel euh, ngeen bàyyi ci xel bu baax muy lu am solo Euh, beneen bi ci tegu su fekkente ne dangay jaay bitig nga xam ni magasin nga yor walla bitig wala lu jaayukaay bu mu mën a doon nga xam ni soxla nga njarte bëgg nga loo jaay mu jar loo taxawal mu sotti loo yëngal mu dox mbokk mi su dee bitig la taxawal ci buntu bitig bi nga jublu penk suba teel balaa ngaa ubbi bunti bunt bitik bi su de palace la it nga ko ubbi jublul penku nga jàng li ñuy bëgg a wax faatixa nga jiital boo paree nga jàng mbokk yi aaya bi nekk ci euh, suratu yaasin muy bismillahi arrahmani arrahim wa jaa min aqsa almadinati rajulun yasaa qaala ya qawm ittabiu almursalin ittabiu man la yasalukum ajran wa hum muhtadun yoon ak ñett nga génn ci buntu bitik bi ci biti nga taxaw fa jublu penku jàngat ko fanweer yoon ak ñett wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa qaala ya qawm ittabiu almursalin ittabiu man laa yasalukum ajran wa hum nga def ko fanweeri yoon ak ñett su dee bitig la dana jar su dee place la dana dox su dee lépp lu waay di jaay te yéenay ñaan yàlla am yéenay njarte yàlla dina la ci defal mbokk mi lu kawe sa njort ala kulli xaal mi ngi noonu euh, muy la am solo lool muy it lu jara bàyyi xel mbokk yi euh, beneen bi ci tegu mooy mbokk mi dañuy farataal li wax ni incha allah nañ ko teewlu bu baax te bàyyi ci xel su ko defee muy lu am solo lool loo xam ne li jar naa bàyyi xel mbokk yi dañuy wax ni su yàlla defee nga am sa doom mbokk mi mu nekk ko xam ne kii xam nga ni danga bëgg yàlla defal ko lu kawe njortam muy jàng bëgg di def examen bëgg di def concours bëgg di def yeneen ak yeneen te bëgg na saa yu ko defee rek am ci réussite su dee examen ku nekk bëgg nga sa doom jàll ci su dee concours la bëgg nga mu jàll ci su dee day yóotu dara it bëgg nga yàlla def ci lu kawe sa njort del farataal di ko ñaanal ci aaya bi nekk ci soratu lanaam ñi bàyyi ci xel suy def examen baax na ci suy def concours baax na ci muy bismillahi wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahim ala qawmihi narfau darajata man nacha inna rabbaka xakimun alim ñu baamtu ko wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahim ala qawmihi narfau darajata man nacha inna rabbaka xakimun alim muy lu am solo lool nga defal ko ko au nombre de soixante-six wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahima ala qawmihi narfau darajata man nacha inna rabbaka xakimun alim ñu bàyyi ci xel muy nombre 66 beneen bi ci tegu nag mbokk yi ngeen teewlu ko te bàyyi ko xel mooy ni euh, am na tur yàlla yoo xam ne nañ ci bàyyi xel yooyu nga xam ne dañ koy bañ a tudd te siin yi bari lool siin yu tooy yooyu bari ci te gudd lool dee leen ko bàyyi xel te di ci def ndànk ndax nit ki lu mu amul xibra expérience waru ci sori su ngeen xamul nag fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun parce que da ci am ay yoo xam ne yi min asma il jinniyin aw il rawxaaniyin aw il aw talsam min al talasim Euh, fi anwaain muxtalifatin nañ ci bàyyi xel kon su ko defee su ngeen maîtriser wul données yooyu eh, dem leen ci ki nga xam ne kii indahu xibra an zalik am na ci expérience mbokk mi mu teg leen ci yoon woo xam ne yi su ngeen ci jaaree du ngeen am benn euh, jafe-jafe beneen bi ci tegu muy la am solo mbokk mi su la yàlla nattoo nga am bor bu bare lool ba jaaxal la ñi nga yoreel bor bari lool ba jaaxal la bari aana ku lay wax ne man de sama li ma yor ci bor daal bari na ba jaaxal man te su ma sañoon yàlla may ma lu ma ko fayee loolu nag su la dalee mbokk mi del def diggante suba teel balaa jant fenk baax na mooy bu njëkk bi ak ngoon balaa jant so mu nekk diggante six heures sept heures balaa jant bi suux nga di ko def bii balaa jant bi fenk nga di ko def muy bismillahi rahmaani rahim ay bi nekk ci suratu furqaan muy tabaraka alladi in shaa jaala laka xayran min zalika jannatin tajri min taxtiha al anhaar wa yajal laka xusuura tabaraka alladi inchaa jacala laka xayran min dalika jannatin tajri min taxtiha al anhaar wa yajcal laka xusuura boo ko toppee mi yaa ngi koy liggéey ci nombre 666 inchaa allahu yàlla dina la tàggatal waaju baax yàlla baaxe mu ñëw jàppale la taxawu la ba sa bor boobu nga mën koo fay te doo am benn coono gis nga mbokk yi lii nag mooy wane ne eh, li yàlla waxoon ci alquran rek moo fi nekk mooy uduuni astajib lakum fa inni qaribun ujibu daawata daai iza daani mbokk yi mi ngi noonu loolu la ñu yàlla waxoon woo leen ma ñaan leen ma ma may leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu addu'a u silaaxul mu'min ñaan daal mooy ngànnaayu jullit te mbokk yi nag nañu bàyyi xel ci ne soxla bu waay am lu mu rëy rëy amal na ko solution lu mu tuuti tuuti solution bi mu ngi ci alxuraan lu mu yaatu yaatu yaatu solution baa ngi ci alxuraan lu mu tar tar tar solution baa ngi ci alxuraan kon mbokk yi wa fil qur'ani eh, ma huwa shifaun linnaasi wa rahma nañ ko bàyyi xel lépp lu way yittewoo lépp lu way soxla feebar bëgg wér seetil alquran bëgg am alal seetil alquran bëgg wéet ak sa borom seetil alquran bëgg am xam-xamu baatin seetal al seetil alquran wa ala kulli xaal wa xatta in kunta turidu an takuna waliyan min al awliyai aw salih min al salihin fabxasil quran soo gëstoo alquran di nga ci gis buntu yooyu yëpp mi ngi ci yàlla nag yaatu na mbokk mi yaatuwaayam kenn xamul fu mu jeexe lu waay bëgg rek xaj na ci moom xajoo na lépp yaatu na ba yaatal lépp du jeexal dara te lu mu am du mas a jeex ba ilaa yawmi diin kon mbokk yi nañ ci bàyyi xel te lépp lu ñuy soxla rek ñu diis ko rabbu samawati wal ardi incha allah dañ ci am mbokk yi lu kawe suñu njort ah, mi ngi noonu nañ ci bàyyi xel ah, dinañ ñëw ak yéen nag ah, ci bunt bi nga xam ne bi amaana mooy bunt bi nga xam ne bi ci la ñuy jeexale ak yéen euh, balaa ñu waxtu wi dab mbokk yi dañ leen di indi loo xam ne lii tey lu am solo la nañ ci bàyyi xel te teewlu ko gis nga ayatul kursi yi mbokk mi commencement bi ba fa mu jeexee xewalu kese la waaye benn rek lañ ci jukki jox leen ko ngeen bàyyi ci xel ayatul kursi yi mbokk mi mi commencé allahu laa ilaha illa huwa qayum soo amee palpitation de cœur nga am xol buy metti nga am crise cardiaque yi ñi tudd yëpp nga am euh, ay problème mu cardiovasculaire comme niñ ko waxee façon feebar yooyu yëpp boo ko amee soo bëggee yàlla defal la ci lu kawee sa njoot mbokk mi da ngay def li ñuy bëgg a wax da ngay wut meew nga bàyyi ba diggante min wi une nga tàngal meew mi ba mu tàng nga teg ko ci sa kanam nga jublu penku nga jël sa kurus nga wérd allahu laa ilaha illa huwa xayul cinquante cinq soo ko defee ba pare nga ëf ko ci meew mi nga naan ko mu mujjee ci sa biir nga topp ko noonu guddi gu nekk nga def ko benn yoon ba muy am un semaine mbokk mi su dee crise cardiaque yàlla dina ko dalal su dee problème cardiovasculaire yàlla dina la ko teg teggil su dee it nga am euh, cardiaque wala nga am ay palpitation yu metti yoo xam ni jaaxal na la lool euh, jëfandikool allahu la ilaha illa huwa xayul qayum cent cinquante cinq nga boole ko meew mu tàng guddi gu nekk mooy mujj ci sa biir incha allah boo ko toppee mbokk mi di nga ci am lu kawe sa njort ak yeneen yi nga xam ne yi amaana xajul ci waxtu wi ndikoon daañu leen ko toppal benn par benn bi nga xam ne bii nag ala kulli xaal duñ ko sax laal ndax xaju fi ndax mbiram dafa yaatu dinañ ci ñëw ci émission yii di ñëw mooy li ñuy tuddee xam suu naqaaf xam suu naqaaf mbokk yi bari aanañu ko xam bari aanañu ko xamul xam suu naqaaf fiihi ismullahi al azam al kabir al akbar al jalil al ajal alladi man daa bihi ajaba wa man saala bihi ata xam su naqaaf nag xam naa am nañu ko miin am nañu ko miinoon euh, waaye incha allahu émission yi di ñëw dinañ dellu siwaat ak yéen wax leen xam su naqaaf mooy lan lu muy liggéey ci lan lay dox lan mooy taxawaayam lan lay mën a defal doomu aadama ci dundam dinañ ci ànd ak yéen ak xam su naqaaf ngeen teewlu ko incha allah waxoon nañ leen ci commencement ba ne leen aajo yëpp alxuraan a koy faj jafe-jafe yëpp alxuraan a koy dindi alxuraan mbokk mi oor a ngi ci jamaa ngi ci feebar wér mi ngi ci alxuraanul karim gudd fan mi ngi ci taxawaay bo bëgg ci àdduna rek soo gëstu alxuraanul karim di nga ko ci fekk ayatul kursi nag mi ngi noonu boobu tënk rek lañ ci tënk bàyyi ko ak jullit yi ku ci am jafe-jafe xol palpitation de cœur cardiovasculaire ay cardiaque yooyu yëpp incha allahu jëlal meew mu tàng diggante onze heures jëm minuit ñëpp tëdd nga wérd allahu laa ilaha illa huwa xayul qayum cinquante cinq boo paree nga ko ci ndox mi ci meew meew mi nga xam ne moom nga baxal nga di ko naan incha allah mu mujj nag sa biir boo ko jëfandikoo rek dootoo ci tegati dara moom ngay fanaanoo ba borset tiilata euh, sabata ayaam mu tollook juróom-ñaari fan yi am na solo lool mbokk yi incha allah mi ngi noonu ngeen teewlu ko ñu teewlu ko euh, fas yéene di ci ànd ak yéen saa su ne loolu rek lañ leen di jukkil tey ci ayatul kursi yi ndax waxtu wi mooñu ñu dat ni kon dinañu dugg ak yéen wax leen aaya bu nekk lan mooy njëriñam euh, mbokk yi beneen bi ci tegu mooy seen soppe waxoon nañ leen ko yaasiin wal quraanul hakiim dinañ leen ko toppal suñu ko waxtu wi mayee benn par benn aaya par aaya wax leen aaya bu nekk lan lay jëriñ aaya bu nekk lu muy faj aaya bu nekk lu muy def aaya bu nekk lu muy dimbalee nit aaya bu nekk lan mooy taxawaayam ci dunduk doomu aadama dinañ leen ko toppal incha allah ci jamono yii di ñëw bu ñu ko waxtu wi mayee rek dinañ ci ànd ak mbokk yi wax leen seen xarit sunu xarit muy yaasiin wal quraanul hakiim allahuma rabbi alsamai wal ardi wannuuri waldulmati waldilli walxaruuri ya man shaqa albihaara wa ajra alanhaar ya man rafaca alsamaa bigayri amadin wa ya man huwa ilahun fi kulli makan wa ya man yasmac nidaa annaasi ala wajhi alard ya man laa yantahi ilayhi basaru naadirin fi majdi jabarutihi wa ya man axaata bikulli sheyin wala yuxiituhu sheyun wa ya man yara kulli shey wala yaraahu axad ya ilahi laa taruddu yada albaas walraja minka ya rab allahuma rabbi laa taruddu yada albaas walraja minka ya rab allahuma rabbi laa tuxayib rajai wa rajaana wa rajaahum wa rajaa jami almuslimin wa salli ala nabiyika wa xabibika wa rasulik salaatan taftax lana biha ilahi abwaab alrida waltaysir wa tuxliqu anna biha abwaab alchar waltaasir wa taqdi lana biha jami alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira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 subhaana rabbika rabbi rabbuna wa rabbukum rabbu kulli cheyin rabbil izza amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin